seen incroyable mais vrai mbokk yi lu doy waar lañ leen di bëgg a nettali nii fii la xewee tey ci fas ci esplanade bi nga xamante ni fa la oto yi di faral di stationné jege Sénégal benn waay moo génnee banque dugal biir otoom daat fee denc xaalis lu toll ci juróom-ñaari million am benn waay ju ñëw sàkk woon pour nettoyer oto bi boobu chauffeur mi ngi ci biir moom fekkeewul yëf yi ndax chauffeur am la fa bàyyi woon ak xaalis bi ci génn ak waa ji pour nettoyer oto bi bi waa ji ñëwee di nettoyer oto bi Euh, chauffeur bi daal di génn ngir xajal ko xam naa mu mën a jël taam def li muy def waaye dañu seetlu ni bi mbir yi jàllee waa bi mu ñëwee di xoolaat xaalis bi gis na ni maanaam am na lu ci manqué mu di ñaari million après ci la waa di expliqué ne heureusement sax ndax juróom-ñaari million ak lu teg laa yoroon waaye waa ji kon 2 millions la yóbbu kon euh, maanaam waa ji yóbbu nañ 2 euh, millions am noonu kan moo ko yóbbu nee nañ xamuñu ko waaye niñ ko mën a décrire daal mooy ndaw yooyu di wër ci yenn bërëb yi di sàkku pour nettoyer oto jàmbur yi donc muy ngi xibaar goo xamante ne nii euh, daw na yaram ci waa ji na mu la koy expliquer waaye moom fi mu ne nii jubal na noonu sax dem police quatrième ndax dafa bëgg dem déposer ji plainte contre X mu di lu doy war loo xam ne nag da di phénomène goo xam ne xaw nañ ko seetlu jamono yi ci réew mi ci ay jeunes yoo xam ne dañuy faral di wër di sàkku nit ñi pour ñu defaral leen seen oto wala ñu daat koy nettoyer waaye nag lu ne mën na ci am ndax lii xew tey jii nag uh, wane na ni kon jot na fi mu ne ni askan wi bàyyi xel bu baax ñi nga xamante ne ñoom la ñuy dénk seen oto ñoom la ñuy jox seen oto ci lu mel ni ay nettoyage ndax sax ci fii nga xamante ne fa la mbir mi xewee booy bi nu fa miin te muy faral di nettoyer oto uh, ka nga xamante ni moom mooy gardien zone boobu noonu sax mu ngi koy seede ndax nee nañ booy léeg bu ñu fi ñooy daf leen di faral di dàq ndax kenn lañ fi xam mooy kii nga xamante ni euh, moom mooy fii faral di nettoyer oto yi mu di xibaar goo xam ne tey xew na fii ci euh, Fass euh, juste à côté de la banque bi nga xamante ni fa la demoon retiré ji xaalis bi ndax sax nee nañ delluwaatoon na ci banque bi ngir xool ndax exactement li mu fa retiré loolu leen ko jox li tax mooy boo xasee ba génn te compté wu li ñu la jox ndax mënu mënu matul leneen lu ci munti xew it bu noo te delluwaat ngir sàkku ñu daat ci yokk wala ñu xaw nunu ko arrangé mu di loo xamante ni nag ah xam naa mi ngi ci loxol police peut-être dinañ xool suite bi fan lañ ci nar a